yor nga def film waaw film nga xam ndangaan doomu parcelle doomu parcelle waaw ah, waaw waaw de moom gars yi dañ may yàq rek da nga am moo fi jaar borom Sandaga ah, dama lay gàncax fa mu ne sa waay léegi jaar wax de gàncax a mu maa a mu maa sa teewaay tey lan la ah waaw sama teewaay mooy indi sama fils rek ñaa bu ndaw comme gars yi gëj nañ ma gis ci ràmb yi maa sama ruq dëgg gay nekk sama bopp waaw indi ñaa di ko ñaanal yàlla may ko ndam parce que sama rakk ga sama xarit ga sama doom ga sama lépp ga waaw. tey jii nga indi ñaa bu ndaw est-ce que xam xale bi muy bëre Bour Sine waaw ga parce que ku ko seetaan diggante ma général ma nga ko bii paase rek da xam ne gaynde ga te du ragal waaw mais ñaa xaga ga te dafa war dem si làmb tey boo xoolee stade bi ni ko ñaa def kon amu droit à l'erreur dafa war a ñëw def prouver wone xagaga dooge fuga fayda daan dem yoonam waaw. toll. waaw waaj rek di waaj sama combat maa ngeer bu zap. Ah, waaw le 3 décembre incha allah. daan rek dem sama yoon Ibou Ndiaye dafa sonn si avec lutte simple bi instant dem si avec frappe bi. xam ngeer bu zap du ma escalier <laughs> waaw ngeer dama koy jàpp daan ko dem sama yoon si ko am incha allah lamb ji li muy nga si am daa fas yéene duuma la ba nga tëb non non loolu xam nga ne yow yow mii yow dégg ma micro sax xam nga ne du ma moroomu ngeer <laughs> ah, wala ngeer du sa morom waaw <laughs> ah, ngeer nga nga war a bëre ak man ngeer ngeer wax ma rek ndax day xeex wala te wax naa ko ko ngeer bëgg a kenn xeex koo dama kaa bëgg a jàpp daan la nice parce que say doom dañ maa bëgg dafa am ay seex seexam yi dañ maa bëgg mais ngeer te mu jéem nekk di dëgër fit naan day suuf tànk yi te dama koy bañ a gaañ. ah waa na xeex. waaw. waaw est yow kay yow kay combat bu jeexee kay yaay taagaat sa micro ñëwaat ba interset ñu jël nag bi di ko dugal si oto nga ne nag bi Ibou Ndiaye mayoon ngeer mu ngi nii góor ca wax ja loolu ñëpp a koy xaar incha allahu rabi ah. benn programme le 3 lan a xaar si moom waaw bu doy ak sama mbokk séeréer yi ak képp kuy bëggee Ibou Ndiaye foo munti nekk ñëw def fuga ak fayda dox si kaw ngeer jàpp ko daan ko parce que Ibou Ndiaye dafa war a dem si lutte avec frappe. jërëjëf bi ñu tuddee drapeau bi. sa mu nekk néew di doon loo waaw mais. maanaam dina leen kenn waaw dina leen nga jëndal ñu ay billets ñaari bogog rek man moom garaaw du ma nga sas gu métti. waaw non man dama koy sos ñaari bogog rek nga jàppale ma ko nga di di nga mën. xanaa duudoo ma koy waaw duudu temps yi nag temps yi nag duudu am na xaalis ah. sama Pape Sarr Kaye Pape Sarr Kaye. kii moo gën a jantal ci a tapé si kii dama ko bëgg de. dama koo bëgg écrit Moussa Dioum la nekk. bi muy ah, sama ñama ñaari rakk lañu. waaw lan laa ciy wax sama ñaari rakk yu mel ni kuy fotow sama ñaari rakk lañu rek. lima ma kii laa sëkk ak ngeer. mais Doudou Ibou. Ah. fi ah. waa Diofior lan lañ mën a xaar si waaw le 3 di ngeen xaar si di ngeen woo rek incha allah rabbi ñu préparé comme ni ñu ko daan defee rek def mobilisation ñëw taxaw seen doom seen rakk seen jarbaat seen wépp ñëw bëre daan parce que man bu ma am Diofior laa koy yóbbu kon ñoom il eh, c'est normal ñu ñëw taxaw ma jàppale ma dooleel moom ma bëre daan si fuga dem delluwaat euh, interset yënga ko ak waa parcelle sama waa koñ suma paree fanaani Diofior ak drapeau bi. lan foog séeréer. ku foog séeréer sim naa den gid maa den raade na a Ndiaye xëy na jam awe ramtooga xama fop maxey na jam maxey na entraînement es waajana seek fe inchaallahu rabbi xeɗa roog oxu refna o ɓinu seereer mu waagoona ref yaasam roog a ci'ongu wod fu o xuudu ñis na barke Seydina Mohamed ga andoona yee koy combat ne mega 3 inchaallahu rabbi décembre meke na arène nationale bugaam seereer o fop a ngara ngeen waam a ndamtaam yaam o ɓiy den refum o ndeɓ den o ndokoor den fop gidma seereer fo xa ɓiy den a